mbokk yi jërë ngeen jëf nuyuwaat na leen bu baax a baax teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax nag ci 30 minutes chrono bi ñuy ànd ak yéen ci solution info TV alxamis june bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci guddi gi tey ñu dellusiwaat di sant yàlla bu baax di gërëm El Hadj Modou Diouf Abdou Top ak Ablaye Diallo Fallou ñu leen nuyu baax waaw di gërëm ñëpp nag ñiy seetaan ak ñi partagé ak ñiy commentaire ak ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen gërëm. te nag euh, ñu dellusiwaat fa seenee waxtaan waxtaan wi nag lépp du génn élection yi waaye te du génn usmaan Sonko ak yenn recours yi ñuy tudd ak ñoom seen waaye te du génn kii di président Macky Sall mi ne day ñëw lu tax tey jii ñu tànn ponk yooyu fa yéene ko waxtaanee mooy élection yi day élection yi am solo ci Sénégal maanaam ëllëgu Sénégal ak fan la ñu jëm ak na la ñu war yore réew mi. loolu lépp élection yi jëm moom moo koy déterminer kon élection la bu am enjeu bu particulier élection boo xam ne kenn warul des ginnaaw képp ki wote war nga xam lu tax ngay wote mais booy woteel nit war nga xam aussi lu tax nga koy woteel parce que pour une première ñu gis ni tey ji le président sortant am na challenge bu tudd Ousmane Sonko Ousmane Sonko enjeu bi ci njëkk mooy xañ nañ ko xañaat ko xañ ko ba mu nekk ñetti yoon tey jii suñu borom dogal mu jiite ab liste Pastef la mouvance présidentielle parce que jamono ji mu daan ut yëpp mooy jamono ji mu tollee ci di wujjee ci wàll politique nekk opposition tey dafa nekk au pouvoir soxla doxal un projet projet boobu mooy lan mooy en 2014 benn sénégalais bu jug di def les plateaux télévision di du ñu indir un discours nouveau loo xam ne miinuñu ko suñ nitu politique yi parce que suñ nitu politique yi ngay gis lu ëpp ci ñoom dañuy répété wu rek maanaam la sangoor doon wax Abdou Diouf di ko wax Lay war di ko wax moom la ñu bari di wax di def politique politicienne maanaam li nit ñi bëgg a dégg ak liñ gëm rek loolu la leen wax mais du leen wax lu leen di jariñ même bu dee ni dal leen di naqadi bi usmaan ñëwee indi un discours nouveau lu tax wax ko mooy discours boo xam ne ci wàllu fisc lay wax ci wàllu économie di wax ci wàllu dette di wax ci wàllu da koom te tey jii bari na kàddu yu muy wax ñenn ñi sax di ko weddi du kàddu yu bees seetloo ngir bëgg a dëggal kàddu yi sax dañuy jël ay kàddu démbam de 2014 à 2019 la mu doon wax ñu koy tegaat di wax na ni loolu ngëm-ngëm la ci moom parce que bu doon ni dafa dem ba nekk au pouvoir di ñu wax yenn wax yi mu bees ci ñun da mën nañ wax ne nguur gi mu yor rek pour la conservation du pouvoir moo tax mu ñuy wax yenn wax yi mais li muy wax ni avant mi jot nguur la ko doon wax mais bi mu jotee nguur moom la continuer di wax kon dafa am lu mu gëm parce que pour ñu mën a def un changement systémique ci suñ réew yi ngay gis il faut que tey jii nit oser parce que nit ci boppam moo ragal soppeeku nit ku boppam moo tiita soppeeku même boo dëkkee ci béréb yàgg fa sax jóge fa dalay jafe da nga naan waa bu ma fa jógee loolu tax ñu naan tukki dafa metti toxu dafa metti même bérébu liggéeykaay sax des fois nga yàgg fa ba foog ni bërëb bee la yor fekk yaa yor bërëb bi mais boo fa jugee ngoo koy xam kon la fait ñu am koo xam ne daf ñu bëgg a jëlee ci point A yóbbu ñu ci point B mën na metti rupture boo gis day metti boo déggee wala fi di ko léebu naan sëy de weñ gi taaweeku la ku njëkk a bàyyi gaañ sa moroom maanaam nit moo ragal xëy bàyyi dara dem ci leneen leneen loolu ñu bëgg dem nag moom la ñu Ousmane Sonko di woo mu doon un projet parce que sànq boo déggee ma jox leen exemple nii la mu doon wax bu mu nekkee ci opposition bi mu ñëwee pouvoir loolu la bëgg dëggal mais loolu la bëgg a jëfee parce que bi mu koy wax yorul mooy yi mais tey jii dafa soxla les moyens pour dérouler dama leen di jox benn exemple le président Macky Sall bi muy njëkk di jug lam lan doon wax dekkal ngor waaye bi mu passé 2009 rek dafa indi APR yaakaar indi yoonu yokkute mais bi mu jëlee pouvoir dekkal ngor ak programme yoonu yokkute bi mu waxee woon moom président Macky Sall ba jot nguur bi mu jotee nguur daf na ñëwee eh, la ma leen doon wax ba falu du lool laay jëfe de mu indi la plan Sénégal émergent la mu ñu wax ba falu bi mu jotee nguur doxalu ko dafa indiwaat beneen plan ñoo doxal ko am na ñàkk ñu ko layal wax ni c'est un programme de gouvernement ceci ou cela mais loolu ay fela yoo xam ne tey jii ñun mën nañ ci teg sunu loxo Macky Sall en 2019 dafa falu dindi poste premier ministre pourtant ci programme campagne am Macky Sall musul wax ni poste premier ministre bu ñu faloo dañ koy dindi musu ko wax ci programme am ba bi muy falu dafa falu rek dindi ko kon bari na loo xam ne wax nañu ko ci bi muy ut bi mu jotee réew mi defu ko woon mais ñi c'est le contraire ñi li ñu wax mooy li leen daan wax ba falu. danoo bëgg ngeen jox ñu les moyens politiques ñu mën ko doxal loolu mooy gorte wax ja loolu mooy ma naari naari naar yaa ngi nii doon na laaj ba ñu jox leen ñu ne ah jox leen ñu assemblée jox leen ñu lii jox leen ñu lee parce que amuñu les moyens de notre politique te xamalu tax ñu war leen ko jox mooy da ngay dégg opposition bi naan Ousmane Sonko da doon wax avant 2022 naan cohabitation moo war a am alors que cohabitation man mosuma gëm ni mën na am Sénégal parce que cohabitation mooy dirante mbagg mais cohabitation mooy dëkk boo xam ne kat de bu ñu demee assemblée assemblée bu dee opposition moom majoritaire day am dayo joo xam ne mun na sax di doxal gouvernement bi alors que fii le président de la république am na dooley tas gouvernement am na dooley fal ku ko neex doole ko neex kon cohabitation ku la ko wax da nax léegi nag créer ay équilibre assemblée loolu ñu bëri soxla nañ ko mais pourquoi ñu mooy yi bi mu jotee réew mi en mille 2019 dañ ko jox majorité à l'Assemblée mu doxal ñu gunge ko ba deux mille 2019 mais la mu ñu waxoon ci doxal bu njëkk bi doxalu ko moo tax ñu ne duñ ko ko joxaat parce que mën na ci téye pour am troisième mandat mën na ci téye parce que dafa am ay loi liberticide yoo xam ne ñun liñ ciy wax du bari parce que ñun gars yi ay fàttekat la ñu jàppee bi ñu ñëwee ci jamono yi Covid 19 bi Guy Marius Sagna yàgg na ko kaas mais jamono yooyu nit ñi duñ ko wuyu. mooy loi yi ñuy wax ci terrorisme ba tey jii képp ku ñu jàppoon ci manifestation ci Ousmane sonk rek dugal nañ la ci loi terrorisme ne loi yooyu assemblée nationale moo ko dugal mais boobu yi dafa mel da leen ko nëbb dafa mel doonoo takk seen bët ay activiste rek nga doon dégg ñu ci wax alors que loi yooyu moo ñu topp ba tey lu jaa xeetu loi yooyu moo tax Ousmane sonk ak ñoom Guy Marius Sagna ne woon kenn du jox majorité Macky Sall parce que ay loi la yoo xam ne le président de la république am na doole ba pare mais bis boo ko joxee dina am doole joo xam ne képp kiy manifester buntu Walfadjri wala solution bii bu leen neexee sax ñu jàpp la na terroriste nga est-ce que xam ne xeetu loi yooyu def nañ ko assemblée nationale léegi nag ëppal googu Macky Sall ëppaloon ba ñu bëri jàpp ni troisième mandat lay ut te bu ko amee am assemblée bi mu bëgg maanaam la majorité électronique wala mécanique bi mu bëgg day noot sénégal yi te gis nañ doole jooju mu am jëriñoo na ko ci lépp doole ji Macky Sall amoon mais ci leenu jël mbiri Mamour Diallo def ci tappale créé ab commission d'enquête parlementaire boo xam ne tey jii bi ñu demee ba of nag danoo jàpp ni Mamour Diallo lu ko doon jiin dëgg na mais Macky Sall amoon na assemblée nationale bu ko permettre mu sauver Mamour Diallo 750 milliards yi ñuy wax ci inondation yi dëkk bi tey kenn amul foo jaar dëkk bi kenn amul foo jaar. oto yi dañuy teggi comme doox c'est pas possible ñu ne réew moo xam ne def na 750 milliards ci inondation mais pourtant bi ñu demee ci commission d'enquête parlementaire ci assemblée nationale le député Macky Sall yi ñoo jël comité bi patam patamee ko def ci li leen neex ba tey jii xaalisu inondation yi mën na nax saay te loolu ay député ñoo ci àndandoo ñooñu ay député Macky Sall parce que majorité bi ñu amoon moom lañ doon utiliser. ñu ñëw ci Covid 19 bi ne junni milliards def nañ ko ci xaalis bi li ëpp ci loolu lekk nañ ko sàcc nañ ko ci jamono ji Sénégalais yi di feebar di dee. ñu ne ban assemblée moo fi nekkoon mooy assemblée bi voté loi d'habilitation ci Macky Sall loi boo xam ne da koy jox tous les pouvoirs mu sañee génnee xaalis fu ko neex jox ko ku ko neex mu def ci li ko neex te sénégalais duñ ko gis couvre-feu état d'urgence tënk ñëpp. assemblée nationale bi bii ñoom ab Mbow yi di ñu laajaat ñu jox leen majorité ñoo ñu tegoon loolu yamuñu ci loolu ci assemblée nationale bi fi jugee mooy assemblée nationale bu ëpp ay député yi ni dindi seen immunité parlementaire ñoo battu record bi depuis Senghor laalo di jamais vu député wax na xadd ga lay na rek ñu ne dind nañu immunité parlementaire am assemblée nationale boobu tey jii moo dox ba nekk assemblée nationale boo xam ne moo fi njëkk a reporter élection présidentielle ci Sénégal alors que le élection présidentielle même le président de la république loi bi ak constitution bi da ko protéger de telle sorte ko président sax munul reporter élection présidentielle mais fexe nañ ba créer ay tappale jiiñ corruption conseil constitutionnel pour pour Macky ak Karim Wade mën a ànd def seen i tappale pousse lidi élection présidentielle ba ñetti doomi aadama ñàkk ci seen bakkan ci réew mi assemblée nationale boobu ci leenu dugal ay enquête parlementaire mais enquête yooyu duñ ci sëgg parce que buñ ci sëggee dafa mel ne seen bopp lañuy jàpp tëj ko ci kaso bi assamble nationale bi fi jógee nga daan gis ab député sañ taxaw saaga ku ko neex wax lu ko neex def lu ko neex boo waxee mun la Macky Sall moo tax may def lii may def ndax moo ma fi teg assemblée boobu la ñu gis Amadou Mame Diop soppi ko camp militaire heure bu meree selon ses caprices selon ses désirs mu woo la gendarmerie ñu ñëw dugg tas assemblée bi alors que même en 1962 ci jamonoy Senghor ak Mamadou Dia rafetal loolu na mbir mi ba maytu sax les forces de l'ordre di dugg di brutaliser ay député mais amul Mame Diop def na ko fi ak yeneen yoo xam ne tey jii boo ko dee wax fi ngay fanaan ñooñu ne woon dañuy dugal motion de censure xanaa motion de censure xam mooy lan ci wàllu guerre mooy arme non conventionnelle mi ngi mel na bombe atomatique ñi ko yor yépp ci àddina bi xam na ni mun na tukkil àddina mais duñ ko bës di tukkal àddina xamul tax nappewukaay la maanaam épée de Damoclès da koy teg nii pour di ko nappee say nit mais doo ko utiliser dangay dégg ñuy soob rek missile temps temps temps temps mais réew yëpp dañ koy nappante mais Abdoul Mbaw bëreet Ousmane Sonko ñëw defagul trois mois sax mu ne nañ ko utiliser pour daaneel gouvernement am dugal ñu ci crise dugal ñu ci instabilité institutionnelle maanaam ñi ñi fi nekkoon ñoom seen intérêt personnel jaraloon na leen Sénégal du am gouvernement du am dara Sénégal du dem fenn ñooñu tey def fi lii lépp ànd ceeg Macky Sall ñooñu ñoo taxawaat ñu ne nan leen jox majorité ci assemblée nationale man waxuma ak Macky Sall kese de Amadou Ba ci la bokk man Amadou Ba ak laa yemale. te dinaa leen wax lu tax ñooyam ci la bokk ak ñi ñu àndal ñépp taxaw ne nan leen jox majorité ñun leen loo leen di doolee majorité ñu ne cohabitation lan ngeen di doyee cohabitation xanaa bu ñëwee notion de censure lay def bu ñëwee dañuy bloquer réew mi bu ñëwee dañ fii dara du fi doxati ñi du leen bàyyi ñu gouverner te loolu lu koy dëggal waxuma fi naan bu kenn woteel kii bu kenn woteel kee de dama leen jox ay fait Sonko ak Diomaye bi ñu faloo dañoo dem ci assemblée nationale ñu ne day def loi d'orientation budgétaire le ministre des finance wara ñëw pour ñu xool les priorités comme ñoom dañ fi fekk budget président Macky Sall te budget bi sax nee nañ sincèreul parce que Ousmane Sonko expliqué na ko 7000 milliards lañ doon wax Mimi Touré di ko weddi mais dem nañ ba xam ne matu woon 7000 milliards. te bari na ci ay borom xam-xam yoo nag de Modou Moustapha Ba spécialiste la woon ci falsifier ay chiffres loolu am na ñu ko wax te Sonko dëggal na ko léegi ñu ne loi d'orientation boobu budgétaire nan ko wootee pour dimbali réew mi ci li des ci at mi sax réew mi am lu mu téye tuuti assemblée bi xam lu mu def tëju génn Amadou Mame Diop ak saawaay Abdou mbaw non non duñ ko woote ñun leen mais lii buñ ko deful même suñu partenaires ya nekk bitim réew ak ñun seqal mbiri xaalis sax ci Afrique bii ñu ne yéen yi duñ ko mën day bloqué réew mi Abdou Mbow na nañ ko bloqué parce que Sonko moo bind lettre ci lettre boo xam ne ci internet lañ ko def bu Sonko xëyoon génn ginnaaw bi ñu daxee loi bi ne danoo piraté sama Facebook ñoom lu ñuy wax li ne ko bind bindu ma ko loolu lu ñuy wax ñoom. léegi ñooñ ñu ne na leen jox assemblée ñun doonoo dof wala sénégalais noo danoo katakay ni ñu lay jox exemple Macky Sall Macky Sall premier mandat dañ ko jox majorité mu doxal ñu xam ne mënul doxal ñu ne nañ ko xaaj ci digg bi ku ne am dara mais teewul mujj naa am majorité Pape Diop fekki na ko waa PDS fekk nañ ko te pourtant ci daraja Sonko lañ faloo woon kon loolu ay fee yoo xam ne ñun dañu ko dund fekke ko gis ko dégg ko te li lay wan ni c'est le sauf qui peut assemblée bi ñi dañoo soxla majorité pour créer haute cour de justice parce que bari na ñu naan leen mbir yi dafa yéex ak yéexul ay treize fay yi toog fu ne ñu takk fay rajo mënuñu leen topp xamul ndax parce que haute cour de justice amul ay ministre lañu woon te loolu lu ñu war a soppi la mooy nan la ab président de la république ak ministre sàcc alalu réew mi def ci lu ko neex ay milliards yoo xam ne tey jii bu réew mi méttee bari na ci ñi ko mettil mooy sàcc yi sàcc yooyu ñu ne leen kenn du leen topp parce que il faut que ngeen dem ba haute cour de justice seeni i bi député toog te tribunal ordinaire yi nekk fi loolu injustice boobu ay Senghor ak Abdou Diouf teg ñu ay laaywaan man man dama ne man pourquoi ab ministre ñi koy utal tirbinal spécial alors que ki sàcc ginaar wala mu sàcc nen comme nen daa xew korog dama romb benn xale bu jigéen mu jën nenu baxal ma xool ko rek day jàpp moo ko waa dina ne kii est xel mi neex na mais li may xalaat <laughs> xam na Sénégal moo neex loolu digression la léegi sénégalais yi moom ay dërëm ki ñaar dërëm ay nen yooyu mun na tax ñu jàpp leen tribunal ordinaire yi tëj leen léegi ki sàcc milliards ñu ne leen def tribunal spécial ay haute cour de justice même assemblée bu bees bi bu ñëwee ñoom Sonko danoo war a def réforme ci loolu yoon wi leen di jaarale di leen àtte daa sori te lool lépp bëgg leen rëccal la guddal mbayum noor la nit du fopp alalu li ñëpp bokk mun ko fuuf ñu koy protéger. te li lay wan ne réew mi dafa bëri tappalkat bi ko génnee ak tey ji man ñu bëri dama leen xeeb ñu ne Sonko dafa wax dëgg ci budget bi ak li sénégalais yi li gars yi sàcc dëgg la ci wax quoi dëgg bi yàq la waru ko woon wax kon léegi kon ñun dëpp kon ñun dañu daan fen quoi dañu ñu wax dara heureusement FMI génn na dëggal Sonko naka li nga def nii transparence la ak bon gouvernance parce que loolu tubaab du ko fooye tubaab du fooye loolu li Sonko def moom la tubaab yi bëgg mais ñun dañu yar ci fen yar ñu ci trian yar ñu ci masla ak négocier ba nu jàpp ni fen wii defar am na non li mu wax ci ñoom Cheikh Diba li mu wax ne loolu dafa weer réew mi comment un débatteur quelqu'un boo xam ne am na éthique am na lu mu gëm ni waa ji ñëw na la man damay jubal damay jubbanti nga ne ko non doo fi jubal doo fi jubbanti parce que ñun ci ndëngte la ñu yar quoi pouvoir yi fi ne yëpp ni la doon doxee mais Sonko bu ñëwoon di def comme pouvoir yi fi nekkoon soxlawuñ ko bi ñu koy fal danga ko fal pour muy def neneen indil leneen te loolu la ñu jaay léegi nag loolu la jaay te mënu ko doxal mooy le projet mun a jox leen ma majorité ma voté sama budget doxal sama projet léegi nag bu doxalee projet bi doxul ñun ñu toogaat fii ne ko saa yi mënoo leen de di gars yi di wax naan ay apprenti ak ay stagiaire dëgg la da ngeen laaj réew mi ba falu mënoo leen bu boobaa ñun fii la ñuy toog Ablaye Wade bi mu njëkkee jot réew mi fii dañ ko jox assemblée nationale en 2000 même les collectivités locales ci jamono dañ ko ko jox danoo def amendement Moussa Tine ñu def délégation spéciale ci maire yi fi socialiste yi baaxoon parce que les coordinations du PS ak les maires d'arrondissement c'était seulement de la politique bi ab lay Wade jëlee maire yi jël assemblée bi li fi def ban koy tàccu tey jii ci la ko mën a def kon mënuñu voter un projet à cinquante quatre pour cent projet bi ne jox leen ma les moyens de demande politique ñu taxaw di ko xañ pour ay tappalekat ay tappalekat parce que tappale mënta weesu recours yi ñu dugal mais comme conseil constitutionnel moo am le dernier moo du nu confirmer wala ñuy infirmer dañuy bàyyi noonu mais dama ci dégg ay commentaires yoo xam ne mbiri naa fekk dëgg la parce que boo nee recours bi ñu def contre Barthélemy Diaz ak seen coalition Pastef moo ko def te du Pastef ki ko def candidat la comme ñëpp di ut comme ñëpp bëgg koom ñëpp. comme nag Thierno Alassane Sall jële woon dogal ne day attaquer la candidature de Karim Wade ci présidentielle yi parce que affaire nationalité la noonu la beneen candidat sañee jël dogal attaquer la candidature de Barthélemy comme tamit ni ko ñoom Macky Sall defee contre la candidature de Sonko dafa jar débat léegi le juge conseil constitutionnel moom moo am le dernier mot na lu mu def noonu la lu mu def noonu la léegi nga dégg ku ne la waa Pastef la waa Pastef tudd waa Pastef parce que dafa bëggoon mu doon waa Pastef parce que ñoom ñooñu bi ñuy teg Barthélemy danoo bëggoon waa Pastef baare ko pour que ñu créer fi beneen Sonko di sonk sonk Sonkolu naan Sonko lan ko doon xeexal di ko bañal moom la xëy def parce que dañ ko bloqué woon mu ne day bloqué Barthélemy léegi ñu bëgg fi jox Barthélemy doole ju mu amul loolu rek lañ bëggoon mais heureusement ñëwuñu foofu beneen bi ci topp ñu ne liste yi bëri 41 liste non Pastef moom moo parrainé ay liste Pastef di yoruñu dërëm bu pare parrainé ay liste jox ay nit 15 millions ñuy dem di nekk ay candidat di di campagne ay nit li ko gënoon yomb kay moo ñu demoon ci coalition gën nit ñoo ñu dugal ne Pastef dem ab jubbu boppam yeneen liste génn ay liste citoyenne xanaa kenn du ma wax amat Diallo bu gox yi bees Pastef ñoo ko ngemm parce que Amath Diallo yàgg naa dem élection élection locale yi weesu demoon na te boobu xamul Pastef kenn du ma wax ni tukulóoru baay ak baykat yi Pastef moo leen ngemm tukulóoru Baye discours am sax ak discours Pastef li wul parce que moom day dëgëral Pastef bu ñu doon ngemb keneen mais yeneen lañu ngemb bu yàgg maanaam boo dugg boo bëggee dugg ci liste yi da ngay xóotal day jël sa temps loolu daal am na loo xam ne danoo am opposition bu amul argument xamuñu fi ñuy taxaw xamuñu fu ñu jëm mënuñu politique aayuñu Barthélemy Dias mi gars yi di tubayul fii mi moo gën a xam boppam barle Barthélemy xam na ni li Cheikh Bara doon barle mi ñàkk am nit ñi moo tax mu dem ci armée ziyaare ak ay dëgg mi Dias neexul deret yëg na boppam bu tey jii bu ko leeroon ni la nekkoon ci moom ci mbooloo mi ngi ci ginnaawam te gëm naa ni amul woon mbooloo mbooloo sonk la doon bëree Barthélemy Dias bu ko leeroon am na mbooloo jour bi ne dugal na recours bi lay génne waa Ndakaaru lan la fi defoon fii ci kanamu DG bi ne dakaar Dakar koy dindi ci élection législative yi ñu weesu ah élection législative yi ñu bi ne liste Dakar da koy dindi nan la def moom mais génnee fi ku ne tàngal fii lu ne génn na fi feetalaak lu ne génn na ci Ndakaaru tey lu tax mën a tekk toog di déglu parce que boobu Sonko la woon loolu la Sonko loolu xeexee kon gars yi il ñu dal te tey loolu nag lépp nag li ko indi mooy aveu d'échec la opposition bi boo deful nank day ñàkk élection yi mais xam na ni dañ koy ñàkk léegi ñu ne nan créer ay conditions yoo xam ne ëllëg dañ naan dal leen sàcc alors que fii caisse de dépôts consignation teewu fi kenn DG teewu fi kenn ki ne woon Macky Sall sañoo reporter élection ki ne woon Sonko doo bokk en mille 22 ak 2024 kooku tey jii mooy jël dogal ci avenir u coalition yi mooy le conseil constitutionnel léegi nag Macky sàll mi ñëw di barbarlu fii ci réew mi il faut que ñu wax ak le président Macky Sall parce que Macky Sall respecté wul Sénégalais yi te dafa jàpp ni moom maki de sañ na def lu ko neex ci réew mi ñëwaat. maanaam dugg ci man ni tiir walla diwlin wala mu dugg ci huile génn mel na mu meloon weex tàll Macky Sall loolu jàpp li mu fi def yëpp waxuma ñi dee waxuma alal réew mi ñu sàcc ci Covid bi waxuma ñin tëj mille personnes waxuma lool lépp li mu fi teg opposition bi li fi teg PDS gi mu àndal tey jii lim fi teg xalifa Sall li fi teg Sonko. moo tëjoon Cheikh Béthio Thioune lim fi teg ma ak Mademba lim fi teg Idrissa Seck tey jii ñoo ñoo ànd loolu tudd loolu tax mu tuddee leen langub noonu te mos ñu tàqalikoo bay ànd naa ci dikkaat Macky Sall mii ñu naan dafa tabax réew mi baat boobu laa bëgg ñi koy wax wax ñu fa lañ ko teg terre bi mill milliards terre bi bu tawee du daw tey mun na am day retard lu bari BRT embouteillage la créé ci yoon bi fa lay jaar bis bu ne mun nga fa def 30 minutes boo wàccee te berte fi mu ko def boo ko defaloon waa Kër Masaar ñu jël boo ko def waa Malika ñu jël mais waa Géejawaay amuñu woon problème mu dem ak dëkk littoral bi mi ngi fi VDN bi mais aussi les deux deux fois deux voies yi Géejawaay mosul am problème boobu mais pour béggaloon rakkam Aliou Sall waajal ko moo taxoon mu neexal la loolu waa Géejawaay mooy BRT bi ñu koy bàkkee nga du nga romb jam ñaajo man nit ñi damay romb jam ñaajo nit ñi di tàccu surtout guddi bu ma génnee Dakar wala ma tukki wala màggal wala nii sama xol bi day jeex ñu ni la stade Abdoulaye Wade 132 milliards leb nañ ko ci turu senegal tabax ko ci stade ci jam ñaajo jamono bi fi Demba Diop nekkee ak euh, Léopold Sédar Senghor ñu bàyyi leen fi dem créer lee léegi ñu créé xam ne équipe nationale rek bii football nga fa mën a dem man dem naa fa benn yoon waaye du ñaar ndax soj laa fa jëlee ak feebar ak pënd. stade Abdoulaye Wade 132 milliards la ban njariñ la ñu amal bu doon stade boo xam ne da da koy tabax mu lay jural xaalis ñu ne code de mu ngi mel ne nga leb kër goo luyewul dëkkewoo ko maanaam nga leb xaalis tabax kër goo xam ne luyewoo ko dëkkewoo ko mais kër googu amul la njariñ mooy stade Abdoulaye Wade nga ñëw Dakar Arena fi ñuy basketté même championnat basket Sénégal ci Marius Ndiaye bii di senn fa lañ koy defee ñu def fa des dizaines de milliards booba tey dakaar Arena ban njariñ la ñu amal alal ji mag Sall doon lépp di ko def ci réew mi ban njariñ la am bu dee Dakar Arena ak stade Abdoulaye am na njariñ nan moo wax centre Abdou Diouf bi nekk ci Diamniadio lan mooy njariñam cinquante six milliards xam ne da ngay dégg ñun la xam ne ñun ñun prestige moo ñu sonal mooy gis nga jam ñaajo lamp yaa ngi tàkk gis nga les sphères ministérielles ya gis nga stade gis nga li mais loolu ça ne suffit pas man bu may investir ci dara damay xaar retour sur investissement alal jooju tey jii mais buñ ko defoon ay usine ci wàllu mine wàllu phosphate def ko ci wàllu géej gi créer ay quai de ñun la ñu am ci code ci wàllu géej kenn xamul mu toll géej gi bu doxee rek kenn soxlaatul génn réew bi di mbëkk gaal di dem mais def ko ci ay futilité parce que ñun dañoo neex a nax dañ na wax tubaab bi dañ daan naxee sunu maam yi ay seetu jël sunu gànjar yi du yóbbu mais Macky Sall ci tubaab yi ñuul yooyu la bokk kooku waxoon ne dool na ci réew mi sëkk abaana gasi ak faga jeex na kookoo dellusiwaat ci réew mi. na leen non da ngeen may jox assemblée nationale ñàkk ngor ñàkk diine même bu ko leeroon ni sa candidature Sonko baaxul Macky warul dugal recours parce que jéem nga ci moom tàqale nga ko ak liggéeyam mu jóge fa nekk député nga dem élection présidentielle 2019 mu jaaxal leen 700 000 voix 15 pour cent ñu jóge ci loolu mbir Adji Sarr kun ko fi tegoon doo jugaat ba tey ji suñu borom suturaal ko mu dem élection présidentielle fal ay maire fal ay député campagnal leen ba fal président de la république des fois ma ni c'est bien Ablaye des fois ma ni Nelson Mandela am na mérite trop mais lenn rek la ko def lu Mandela deful mooy Mandela dafa xeex ba xeex bi jeex mu falu Sonko dafa xeex ba xeex bi jeex mu fale Macky waroon naa jomb di dugal recours contre ko parce que li nga jëm ci moom yëpp mënoo ci moom dara mais comme li damay dégg saa njoogu di ko wax fi mu mujj mënul neex te baadool bu jibee gàcce fekk tàbbiwu ci du am jàmm léegi nag ñun wax lañ ci am pour ibbi bopp sénégalais yi léegi nag sénégalais yi ñoo jël seen responsabilité xam fi ñu jëm waaw buñ bëggee mu dox xam na ni def bu buñ bëggee nag mu mel na meloon tamit mooy loolu kon di gërëm Abdoulaye Diallo di jéggalu ñëpp bu dee kàddu yi ëpp na di leen baalu ak di nuyu El Hadji Modou Diouf moom tamit Abdou Toob ak Ablaye ak sëñ Fallou Gumbala Omar bun Xattaab Guèye moo nekkoon ci kàddu gi tey nag moom danoo te di masawu ñëpp ci taw bi kon ba beneen yoon incha allah.